donc nous avons rek euh, encore la encore phase 2 mon conseil concert Youssou Ndour bi yi nga xamantene def nañu phase 1 muy la donc phase 2 muy tay phase na ak suba donc nous au sénégalais yépp fu ñu mënti parce que Youssou Ndour il est complice Youssou Ndour c'est un ministre conseiller sénégalais Youssou Ndour pendant 12 ans mo ngi nek copain wu Macky Sall ci wétam Macky Sall di reye Youssou Ndour mu ngi ci wétam Macky Sall di tëjee Youssou Ndour mu ngi ci wetam Macky Sall jàpp opposant bi gën a rëy Sénégal Youssou Ndour mu ngi ci wetam maintenant au bout de douze ans de compagnonnage Youssou Ndour mu jékki-jékki rek ne man bàyyi naa Macky Sall day yomb trop démb nag xew bi xumb na te dagan ndax lan xumb na te dagan dafa invité ay xaritu tubaabam ñu toog ca kanam foog ne bu ñu ñëwee nañ kàppar ñi xale ñëw rek ne libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko tubaaye bi yépp a mer mais nag li ci gën a neex mooy tubaab bu nekk bu ñibbi këram dina xam li xew Sénégal ndax Youssou Ndour dafa taxaw def wër télévision tubaab bi yépp ne Sénégal tout va bien Macky Sall la ngi liggéey dafa dul dul bu rëy mais tey yéen boo leen demee ci concert bi ñun bu ñu demee ci concert bi ne Macky Sall dictateur la ñëpp na nga Youssou Ndour complice ndax kon moy moy wone né France 24 TV 5 Monde xawma lan numéro 1, lamu mu duul pour préparer spectacle bi ñëpp nañ xam ne opportuniste la. léegi nag Châtelet yomb na xam won naa leen fi ñuy démé bo len Châtelet rue de Rivoli ngeen jaar ci Damar bi magasin Damar boo leen di passé Damar ca angle ba rek ngeen jaat en face yéen a ngi jàkkaarloog théâtre bi kenn munta réer kenn munta réer ku amul GPS mun nga déglu live maam bi 16h na la fekk ca xew ba 16h 20h ku mën a jënd billet dem leen jënd billet billet yi entre 7 euros 15 euros du billet yi jar ay millions billet yi cherut affaire bi même boudé 100 personnes 50 personnes plus ñu bari mieux c'est touba bi ñeu pour capargne buñ len empêcher ñu capargne rek moy gagner moy demb phase numéro 1 la tay phase numéro 2 suba phase numéro 3 may wax wa 18e la police de Macky Sall a tué un immigré qui était parti en vacances qui habitait dans le 18e. Est-ce que Youssou Ndour George Flyer na est-ce que ce qui souffre, suuf ne George Flyer déedéet Youssou Ndour vas bouder deewee da koy golo tubaab de deewee da koy jaale tu vas bouder deewee da koy jaale jinne tubaab dafay da koy mais sénégalais bu deewee du sénégalais de mosoo leen dégg Youssou Ndour jaale leen déedéet accident day am du jaale te ministre conseiller Falo, té lolou laa lay sebir, sa bir gat bi yow yousou Ndour ambassadeur de l'éducation ci bi nga ambassadeur de l'éducation président Emmanuel Macron yo ba Sénégal ñu yëkëti budget may ko pour pour maye éducation pour financer éducation même pas un mois ci la ti tii qui Macky Sall tirer pour 35 000 francs CFA yow yousou yow mi ambassadeur de l'éducation est-ce que demoon nga jaay la ji euh, yaayu yaayu fàllu est-ce que mi en tant qu'ambassadeur de l'éducation est-ce qu'il s'est levé pour dire aux policiers qu'ils n'ont pas le droit de tirer sur les étudiants non non Ce n'est pas son problème il n'en a rien à foutre léegi Youssou Ndour France waxuñu fenn Châtelet au cœur de Paris foog naa ni képp kuy patriote te dëkk France boo mu nee ñëw xëy na ñu nekk province yu mën a ñëw mais ñu nekk Paris rek mun nañ tëgg xew bi ñi nekk Paris rek ah mun ngeen tëbb xew bi c'est-à-dire à partir de 16 heures da ngeen di joxante rendez-vous sonkoriser koñ bi yëpp yëpp Sonko namm naa la Sonko namm naa la loolu da leen di métti après ngeen ne Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur ba ñëpp xam ne dictateur la Macky Sall criminel Macky Sall criminel ba ñëpp xam ne criminel la. Macky Sall assassin Macky Sall assassin ba ñëpp xam ne assassin la Youssou Ndour complice Youssou Ndour complice Youssou Ndour complice ba ñëpp xam ne Youssou Ndour complice la Youssou Ndour assassin Youssou Ndour assassin ndax Youssou Ndour rey na. Mamadou Ndiaye ci buntu keureum dafa ñëwoon di ko bor ci buntu keureum lañ ko retrouver retrouvé la télévision de Youssou pédophile la télévision de Youssou Ndour pédophile fa nous ëmbalé Zeyna fa lañu ëmbalé Aïcha Koné ba ñëpp xam kan mooy Youssou Ndour man Youssou Ndour répertoire la ra répertoire bu il bo xam ne bu nekk mën na ko mbalax ah ñëpp fecc ko parce que yow sa jëf yu ñaaw buñ ko tëggee ngal mbalax rek ah foog naa ne tubaab yi bés bu nekk ñu fecc léegi nag à la guerre comme à <laughs> tey la tey <laughs> ñi nga tubaab yi xam nga dañuy jóg foog ne ne ay birima la ñuy fecc tey birima bi xam lan la libéré Sonko <laughs> libéré Sonko tey Sonko moo remplacé birima wu fet Sonko moo biri ma bi moo ngi génnee affaire bi tubbi na na xam na na waa représentation de biri Birima léegi nga représentation de Sonko parce que nañ ko sonkoriser sonkoriser ko sonkoriser ko sonkoriser ko affaire bi affiche ngeen di def représentation de Sonko au théâtre de Châtelet nga bëgg si sa béti maa leen ba nga bëgg nga bañ di nga représenter Sonko fii nii ci théâtre Châtelet représentation de Sonko la la représentation de Birima de représentation de Sonko eh Sonko na naa la ana mon woy sam ko mën Sonko namm naa la woy dama neex moo dak Birima <laughs> nee ma non xamoon ngeen ne ah xamoon nga ne duñ la raté xamoon nga ne xaw bi na métti te ji nga tubaab ya gënoon am ci premier jour bi la ñëw

fin wu sonkorisation bi pour mën a continuer scénario bi gisagoo leen daal tey mooy phase deux tey rek di ngeen xam ne Sénégal moo moo leen ka famille Ndourène tey rek la ñuy ñaf seen ndey tey rek ngeen di dee tey rek ngeen di dee xoolal te Youssou Ndour Macky Sall bu fi jógee xamal ne yow sa concert dootul amati kenn kenn kenn yow dañu lay di di nga Macky Sall buy dee da lay yóbbaale amul nga démissionné au bout de 12 ans. té bo répé xam nga nak kan mo lay xélal bo répé bané da nga bëgg nek président de la République Sénégal fofu na ngay déwé fofu la sénégalais yi di la ñëfé sa nday <laughs> Youssou Ndour ñi nga bind laaxe li ñu naan caga kenn du ko nax ñaar yoon bu ñettee da ko neex Youssou Ndour do dara dara dara dara dara dara ça c'est que le début au fait ça c'est que le début auditeurs maa ngi lay nuyu bu baax ba li di xool début bi kessé la kessé kessé kessé kessé kessé li lancement bi la di ngeen xamné Sénégal

lobby yi du ñu ànd ak koo xamante ne amul ay nit lobby yi du ñu ànd ak koo xamante ne mënu leen indil kenn déjà yow démb rek théâtre bi rek nga gis ko ni mu vidé loolu ngay wane ne yow Sénégal kenn faale wu la yow tubaab yi sax kenn faale wu la quelque tubaab ngay jéem a wut wut lu xaar euh, xaritoo yu ñàkk fayda yooyu noonu mais tey nañu ñaf sa ndey tey mooy phase 2 xam naa yaa ngi tux rek di naan sàngara di tux rek di naan sàngara di xalaat fan la gaa yi di jaar mais fi ñuy jaar doo ko xam mu fet fu ñuy jaar doo ko xam parce que xeex dafa sauvage te dagan nee naa la xeex na sauvage te dagan c'est-à-dire dafa am équipe A équipe B équipe C et puis équipe E G équipe bu nekk groupe bu nekk moo am ce qui fait que ne boo leen bu ñuy ñëw dafay sauvage te dagan dem da ngeen bëggoon infiltrer xamoo leen noo leen di infiltrer parce que kanam yooyu ñëw sa doo leen xàmmee mooy ne am équipe A équipe B dafa am ñoo xam te ne ñooy organiser am ñoo xamante ne ñooy nekk sur le terrain am na ñoo xam ne ñooy def bi di nga équipe bi ñu ngi nit bu la ëppee doole billaay bul xeexam moom yéen Sonko da leen naa ëpp doole ëpp leen doole ëpp leen capacité ba ci biir kaso bi sax soxla muy organiser bu ñuy ne sonkorisation am na rek ñëpp ay débarqué benn par benn ñëw sonkorisation ndax moom moo xew lii nag concert de sonkorisation bi amaat na tey parce que c'est deuxième phase deuxième jour bi ku bëgg a dem na wax ma yónnee ko lien bi mu dem lijjante de bie, bëgg a jënd billet na bëgg jënd de a ko sentir même bu da photo Youssou Ndour ak ñi Macky de rey ci sa ginnaaw de de taxaw ci concert bi complicité ñi tax euh, di

nous changer version version xew mo changé <laughs> lii nag damay dundal Li <laughs> mo may dundal toroxal sa ba sa xaritou bi yepp benen concert bi ne yow nit nga du bi complice du système duñu ñëw bi buñu démé xol la xew États-Unis du yow Youssou dañ en fait da nga bëggon avant le gars il voulait faire le petit malin avant muy organiser théâtre bi la ne na ci gouvernement Macky Sall pour bu ñu ñu ne moom il fait plus la politique de toutes les façons xam nga bàyyi na politique ak affaire yooyu noonu ba pare nag continuer nekk géwélu Macky Sall ne Macky Sall c'est un bon président léegi nag yow da nga foog ne ba ñuy fanal ci télé euh, France 24 da nga foog ne ni ñun ñii amuñu làmmañ mënuñu déplacé wu faj suñu soxla dañuy déplacé wu. dañ lay toroxal sa ndey te kenn du ci man dara billet yi jënd nañ ko ba pare ñu gën a bari ñu bari jënd nañu billet ba pare trois jours yi dañ ko préparé balaa sax ngay wax lañu ah, la ñu préparé jënd billet yi billet premier jour bi sax dañ laa rate parce que billet yi dafa teel a jeex mais tey ak suba ngay gis lu mel ni xamee Youssou Ndour tey ngay xam ne ne Sénégal yow moomoo ko.

c'est écrire à peine son nom et son prénom, on rêve ou bien vous, vous souhaitez qu'on ait un président nul. Parce qu'il y a le rêve et le souhait. Nous, on n'a jamais rêvé d'avoir un président comme Youssou Peut-être, c'est la France qui nous souhaite d'avoir un président nul. Parce qu'ils ont tendance à nous, à nous choisir des présidents nuls. Des nuls, nuls et nuls et nuls. Youssou Ndour, ben ben en plus Youssou Ndour ñu mu ëmbal te reconnaître leen dafa bëri c'est-à-dire je vais le dire en français il a enceinté beaucoup de femmes et il n'a pas reconnu les enfants il n'a rien de galant Youssou Ndour <laughs> non <laughs> Adama Jaxate <laughs> nee naa leen ah yéen ah di ngeen remlem sen par la force toog APR xoolal dañ leen di dóor foo leen mënti jaar dañ leen di dóor di ngeen de maam se ah xaw ma ngeen di tànn même boo leen defee candidat unique candidat unique bi maa ngi xaar muy toogee ba naan campagne candidat unique bi nañu xaar rek fa ngeen koy sànni muy campagne ndax nañu sunkuriser seen ndey sunko bu ko neexee ngeen lekk ko de mais boo leen koo lekkee tamit doo leen koo géexee Sénégal laaxira ngeen koy géexee parce que foo leen romb dañuy toroxal seen ndey te dara te dara dara dara dara dara dara là c'est que le début parce que vous êtes maudits te ñun bu koy def avec un grand sourire xam bu lay la la da avec un grand sourire ci café di xol di te ci dara il est en train de picoler xam nga fan mooy neex Youssou Ndour di tux cigarette di sandi di tux di sandi di tux di sandi di nan di di nan nek dans tous ses états et il est dans tous ses états <laughs> dans tous ses états instant bi Youssou Ndour instant même buy wëy pour naree dem tey concert tey psychologiquement on l'a tué le problème en est que psychologiquement dañ ko ray dañ ko ray dañ ko tué lolou mo neex ci xex bi li neex ci xex bi yëpp moy psychologie

annuler concert bi ndax defet la ci moom dama len di wax état mental um Youssou Ndour actuellement son état mental psychologique Youssou Ndour xala gennal nga def discours <laughs> gis nga bi do sénégalais yi li bi Youssou Ndour fii la def concert même pas une minute de silence xamone nga né vengeance est un plat qui se mange froid instant bi <laughs> Youssou Ndour instant bi xam tu es dans tous tes états bi moo nekk conseil boo xamante ne ah la ñal ñal ña nga xamante ne dañ la dañu sponsoriser xew bi ñooñu si boppam dañuy dem ba duñu bëgg a feeñ ci xew bi parce que dañ naan ils sont complices avec cet état là mooy juste nu di nga dem ba bëgg ku la sponsoriser moo tax may ne Sénégalais yëpp da ngeen war a génn tey yéen ñëpp da ngeen war a ñëw châtelet dénoncer les gens qui sponsorisent Youssou Ndour le criminel Youssou Ndour complice de Macky Sall plus plus ñuy bëri plus sponsor on dañuy commencé di génn ben par ben parce que prochaine fois Youssou Ndour faut que ci bonté. je veux qu'on me sponsorise du ñu bëgg sponsoriser La sponsor yi du sponsoriser, bëgg a sponsoriser réputation bu bon ci dëkkam moo il faut ngeen renouveler tey ñu def ko mu dëgër. Mhm. ma remplacé nañ ko Sonko y a plus de Birima Birima dee na yàgg na Birima Sénégal xale yi si boppam <laughs> amul kenn sax kuy toog naan damaa bëgg mel ni Birima yow Birima ñun suñu histoire dëkk si boppam dañ koo maîtriser wul ñun Birima ah am na ñu bëri jànguñu école xamuñu sax kan mooy Birima léegi Birima mi nga xamante ne Sénégal ñi koy toppatoo bëriwul. ah yow nga bëgg a dundalaat Birima boo xamante ne sa dëkk ci boppam t'arrives même pas convaincre les gens du Sénégal de de la des choses de Birima parce que Sénégal ku xëy mu ngi xalaat la muy lekk la muy naan coono askan bi coono journalier lam lay xalaat nga léegi nag yow Birima boobu nga xamante ne Sénégal ci boppam dañ ko faalew yow nga ñëw naan da ngay représenté Birima Sénégal Sonko lañ faale Sénégal Sonko lañ bëgg Sénégal tànn nañ seen président ba pare léegi nag ñoo tànn président boobu ñu tànn te yow bëggoo ko yow Youssou Ndour ndax fii mooy terminus dadaa far ma maa lay nuyu bu baax fii mooy terminus fii mooy terminus fii moom mooy last abi cucu c'est fini fii ngay jëlee retraite Youssou Ndour riiti fii ngay jëlee retraite mbay peex fii ngay jëlee retrait fii fii mooy terminus su géwél yoo fet fii la ñuy abolir mu jeex tàq fii la ñuy liré opportuniste mon système bi e-, effondré effondré je vous demande solennellement de partager la vidéo comme ça tous les Sénégalais seront au courant de l'état psychologique comment on a perturbé l'état mental du plus grand opportuniste du Sénégal ki est Youssou Ndour léegi bu ñu jógee ci Youssou Ndour ba pare dafa am ñu nekk Angleterre dañoo fellu ñu sonkorisé Baaba Maal mhm. boobu tamit daf ñoo neex ndax Baaba Maal dafa ànd ak Macky Sall di ko def un péto bokk ci congrégation góor jigéen di jàppale ñi nga xam te ne dañoo am sida fa yem moom baax ma bu nekk loo xamante ne ñoom xam nañ de mais ndeddo ndeddo ñoom ñoo suñu ndeddo ñoom ay deux puces la ñu ñun suñu deux puces du ay des deux puces foofu ba ma parler ñoom xam nañ de léegi moom baaba fii la ñu yëkkati oto bu rafet Macky Sall may ko ko mais góor ak bu ñu joxantee oto góor bu xoolee moromu góoram ba pare góor bu xoolee moromu góoram romb jigéen ñi yëpp may oto bu góoram te ñu ne borom góor bala ñu may oto ñaari boroom borom ñaar yi pus la xel tey na xel tey na xel na xel tey na kaddu boobu noonu xel na xel na man nag foofu laay yem parce que boo nee boo yeggalee ñu ne ah maam waxati na mais man sama xel na. ba ñu yëkkatee oto góor yëkkati oto may góor xeltee na te góor boobu ñu naan góoru ñaari tur yi la xeltee na xeltee na de xeltee na léegi nag baaba baaba baaba dafa ko ne rëcc na de ne de gaay guuxal nañ ko guuxal nañ ko xool nañu baaba yow ba nga demee di jaale ji Californie la ñu xam ne yow ci loo bi nga bokk te sax man foofu sax sama xel tey na fa sama xel tey na fa parce que man fu baaba dem jaale ji góor rek sama xel day tey buñu ma nee baaba dugg na rek sama xel day tey foofu xel tey na mais bu ñu waxee ñu ne maam waxati na parce que bu ñu nee deux bis bi dem na jaale ji fii ñu yaatal ko. en général deux puces bu demee jaale ji fa am fa am deux puces rek lay dem fañ ko nangoo rek lay dem il a été bien accueilli li ngeen tamit sama xel tey na mais foofu yëpp dama jël ni ki parce que boo xoolee ni Kaliphone bindoo xawut a sori ah mat de sama xel tey na ci diggante boobu noonu deux puces deux puces léegi nag na ngeen ko def état na ngeen fa def fa fële na le Angleterre. nokk ko ba muy ne moom tamit dootul mën a tee feccati un peu international parce que nga xam ne def nañ ko ci loo bi pourquoi Macky Sall rey na déggoo leen Baaba Maal wax ci Macky ngi tëj déggoo leen Baaba Maal wax ñun daf na ni ñu ci dëkk bi Alpha Blondy moo leen gën a rëy te lu xew ci dëkkam day dénoncé li xew Afrique day dénoncé mais yéen mosoo leen dee mais sama leen yu baax mosoo leen dénoncé daara daara daara daara daara daara daara daara daara mosoo leen est-ce que cartographie international la wax bisexuel deux plus, bis deux plus, Bi ak deux la diva deux plus le mâle deux puces la yuuxu ñaar yi lay def day dafa góor dafa jigéen amee sax maa leen nuyu bu baax a baax léegi ñooñu dañ leen jël siwal leen pour def promotion deux puces moo tax ngeen gis deux puces yëpp bëri Sénégal moo tax ngeen gis ñoom Pawlish moo tax ngeen gis ñoom Pape Cheikh moo tax ngeen gis ñoom dañu nekk pour yàq ñu ngi yàq seen société te comprendre loo ne ñu ngi yàq seen société

non seulement ñu ngi leen di sàcc di profito ci seen dëkk xaalima maa lay nuyu bu baax a baax mais en même temps ñu ngi yàq société bi ñu ngi yàq société bi yàq bu bon boo xam te ne bu ma waxoon nu ñuy yàqee société bi wax ko ci langage correct dañ naan maam dafa maam dafa de maam dafa yokk moo tax léegi maam da leen di cabaxal tuuti rek ñoom bu ñu dégloo dañ xamné l'imam wax dëgg la effectivement amna match 16 octobre bi lance bobu il faut ñu synchroniser ko pourquoi ministre de la jeunesse et des sports day ñëw mom moy ubi match bi Mariama maa lay nuyu bu baax baax copine mom moy ubi match bi match bi match bu reuy la pour len ko négliger bu lance bi bu reuy reuy reuy la bobu et août, comment c'est réservé C'est un co-vaturage, 8 bus, 10 euros, pour les a 20 euros, pour les a C'est-à-dire 8 bus, il y a des fonds, les vous avez réservé, réserver y a vite fait, qui ne marche pas. Il Belgique. cest à faut que vous commencez à rassembler, d'une de ces billets, pour qu'on puisse avoir des milliers de Sénégalais qui un peu partout un peu partout pourquoi journaliste yi dañ fay nekk média yi dinañu mën a wax tamit yenn joueur de foot yi nga xam te dañuy nekk ci armement bi di jaay ay armes ak ñenn ñi nekk complice avec l'État ak ñenn ñu noppi ndax ba ñu yàqal leen wan leen ne Sénégal la ñu bokk wan naa le opinion internationale que ne y a des jeunes qui sont fans du foot qui ont été tués ci me té et amul Benne équipe Sénégal bu taxaw une minute de silence par rapport à ces jeunes qu'on a tués parce que toutes les personnes qu'on a tuées depuis le mois de mars 2021 jusqu'à présent c'est que des jeunes Tout ay vous buñ ci pas. paa tuuti paa la jeunes yooyu ñooy un match jeunes ils ont football jeunes yooyu ñoo yore avenir football kon jeunes yi bu ñu amulee Sénégal football warta am Sénégal ils koy sonkoriser mon général moo match bi tamit Sénégal Cameroun bi da ngeen dem wàcc fa won ñun kan ndax fay lu ëpp lu ñuy commencé ni car cette fois faut pas avoir peur la peur a changé de camp ñu plus ngeen di général

boo nekkee panafricain panafricain Youssou Ndour xamoo sax lu panafricain wara. wax xamoo sax lu muy tekki yow pana sama poche nga mais tu n'es pas un panafricain tu n'as jamais été panafricain et tu ne seras jamais panafricain yow sénégalais ñuy dem da nga am chance sax bi may dem Châtelet li mo romb ci ay migrants yëpp ci mbedd bi dama len waroon photo yónnee ko. heureusement wala malheureusement j'étais trop pressé. mais si j'étais pas pressé, il doon donc sama temps yëpp woon les nombre de migrants yi nekk ci koñ bi yëpp tegal la ko face sa kanam ak kii la yónni balaa ngeen di xam politique bi ngeen di def n'y a ngeen ñëw def tuuru Paris actuellement li li am ci ci migrant ça fait 20 ans mané avec france mo suma ko gis dans toutes les rues c'est déversé partout dimba ay couple ngay gis dekk rax jabar ak sen dom ñi fanan ci mbedd té sen ba ngi mais pas dans sa poche là non <laughs> yo ko len ko ci dé pas dans sa poche là dimba dama bima ma bay wadi yegg Châtelet dama gis benn xale ndeysaan xale bi il avait il devait avoir un an et demi deux ans police municipale bi ñëw waxtaan ak yaay ji ak ñi fa nek non di fanan ci mbedd bi bi ñuy dem xamna naa xale bi de fogné ay papam lañu xale bi top policier yi di dem policier yi gisuñu ko dox nañ lu mat à peu près 2 mètres pour gestu doog a gis xale bi di len top ñu nek ko non va rejoindre ta mère ben petit noir bu mignon bo xamantene sa yaram day daw que je am France actuellement pour boo pour que changer parce que problème c'est pas le fait d'immigrer et de vivre dehors mais ni nous ci bi ni ci Nous, a bëri mbokk lañu ñun ça donne mauvaise image d'un noir Bo xamantene nangu na Nous, ci bi mais du ñun nga Ici, en Hollande, aussi des mineurs, filles comme garçons. je t'assure nous ñi nga xamante ne au moins may nañu pour nous. je ne vais pas dire qu'on est des milliardaires je ne vais pas dire qu'on est des millionnaires mais il y a yàlla suturaal nañu nous faisons ñi nekk ci mbedd bi jàppale leen ci manifestation yu Nous def appelé financièrement si on peut parce que foog naa ne ñoom situation bi ñu doon nii ñoom ñëpp kenn mun leen jappalé ku ne mun na jël migrant yi nekk France yëpp en charge maam néna na day fen y en a beaucoup c'est des milliers de personnes dehors té sedd baa ngi ñëw day gën a métti ngeen di xamné né politique bi ngeen def politique bu caduc la politique bi ngeen def c'est pour politique d'appauvrissement d'une population politique bi bu ñu amaloon njëriñ tey migrants yëpp dañu nekk ci mbedd bi léegi amaluñu njëriñ ba pare ngeen ñuy rey moo tax yow Youssou Ndour boo ñëwee ci kanamu tubaab bi yëpp ne yu Macky Sall mu ngi liggéey y a des migrants sénégalais beaucoup de migrants sénégalais yuy fanaan ci mbedd bi Macky Sall mu ngi liggéey kon migrants sénégalais yi du ñu wut si fii Macky Sall mu ngi liggéey lan motax tax ku bëgg a jàng fii lay ñew motax yow mu Youssou Ndour sarax len ma rek ngeen partager le maximum dagg ko ñepp xam fan la xew bi amé tay xamné xew bi jeexut le concert n'est pas fini il reste aujourd'hui et demain concert bi jeexul de tay ak suba la xeex bi na sauvage té dagan c'est-à-dire jënd leen rek sen ticket civilisé ma sañse civilisé ma boo leen neexee ba ne cabax dugg ci biir boo leen amee mbiib sax baax na Sonko namm na la boobu nag dañ koy weñ Sonko namm naa la boobu dañ koy weñ ngeen ne libéré Sonko Youssou Ndour complice Macky Sall criminel libéré Sonko Youssou Ndour complice Macky Sall criminel Macky Sall assassin Macky Sall criminel léegi foofu si saa dina am ay alpulaar ngeen ñamal tuuti ala boni Macky Sall ala Macky Sall ala boni Macky Sall moom dama ko mun sax fecc ala boni Macky Sall ala boni Macky Sall ngeen koy def nee naa booy changé version concert bi rek version théâtre bi rek mooy gañ ngeen comme niñ ko changé démb léegi nag maa ngi dem demander sama radar yi état mental Youssou Ndour man état bi rek lay xool parce que ji nga sulaar xol bi tàngee rek day naan rek di naan rek di naan sulaar bu stressé tuxkat bu stressé tamit day tux rek di tux rek di tux rek foog ne ne tux bi mooy calmer neer mais yow Youssou Ndour sa neer yi du mas a calmer ci nga trois jours yi moo trois jours yoo dul mas a fàtte sa àdduna danga naan bu ma yëgoon yem ca woy ba ba ñu dugg ci affaire de politique bu ma yëgoon du ma wax léeg lii te yéen ñëpp lay xaar benn par parce que bi Youssou li nga lekk moo bëri Covid bi bi ñu budget de l'éducation financement ce qui aide pour éducation yow ya ko encaissé yow yow Youssou Ndour yow ya ko encaissé aide de l'éducation bi moy ni qui toppee Diouf ci xaalisu santé bi yow non lañ la war ci éducation bi parce que touba bi dañ joxe won ben budget pour éducation bi parce que da ngeen ne l'éducation était affectée yow Youssou Ndour ca nga bokk encaissé nga Youssou Ndour sommet de l'éducation l'argent tu as encaissé man fi ngeen di rootee jee laa leen tegal ci kaw table bi ba nga nekkee ambassadeur de l'UNICEF da nga don am encaissé ci xaalisu baaco baayo yi mais sa télévision ku ci dugg bëgg défendre talibé yi nga tëj émission bi yow Youssou Ndour Kabi ci sa diggéen chimère J'espère qu'il va chanter à Amani, Makidou, Faté, New York. non vous ne pas ko def mais ñun problème bi version yi mu defoon yëpp dañ koy avons version Amani ah hein, man duma faté, Macky New York ñun version boo ale leen ko ñu wéyal ko ko ca concert mooy ñun ñooy imposer version yi li ñuy li ñuy théâtre tey ñun ñoo ko imposer du Macky du Youssou Ndour koy imposer théâtre bi ñun ñoo yore version bu baax bi ngeen partager ko nag le maximum TFM maki Sall bu fiy jógee dañuy tëj seen ndayu télé man maa ne Macky Sall bu fiy jógee Sonko di jël population di jël di jël dëkk bi amul ñi fa la ñuy daane seen doole de déedéet fa la ñu ëmbalee Zeyna dañ ko war a tëj fa la ñu ëmbalee ay Koné dañ ko war a tëj fala la Bouba Ndour ëmbalee ay Koné dañ ko war a tëj c'est-à-dire Youssou Ndour bu fi nekkee bu bu fi euh, euh, bu fi jógee mooy toutes ces télévisions corrompues dañuy tëj seen ndey amul non ay pères de famille ñoo fay liggéey de déedéet ay larbin ñoo fay liggéey ay imbéciles ñoo fay liggéey parce que ñoom ñu ngi seetaan ñuy yàq askan bi ah Amina Poté war na génn télévision nañu waxante dëgg Amina Poté di ngeen jël man sama doom ñaan ma yàlla bëtam gis Amina Poté yenn saa mu gisee ay xale yam cinq ans six ans ne dañoo fan Amina Poté dama naan ñii est-ce que xam est-ce que am nañu yar parce que comme éducation do fan Amina Poté elle est vulgaire amul ben éducation amul sax notion d'éducation. éducation na jom ñak jom bo xamante ne man de ñaanuma yalla sama dom la wax de dama censurer émission Amina Poté pour sama dom man ma fille elle regarde pas des conneries pareilles parce que j'ai pas envie d'avoir une fille comme elle Yen yaay yi nek a responsable sen dom yi bu leen bruit bëggee jur doom yu ñàkk joom rek dee leen tegal seen doom yi tous les jours TFM ñu di ko seetaan dañuy ñàkk jom ndax ku am joom jom neew fa gor ya génne nañ leen fa comme Kouthia ñi am xam-xam génne nañ leen les vrais artistes génne nañ leen les vrais imams duñ fa toog ndax ñoom yëfu yàlla taxu ñu ñu jóg affaire de seytaane ñuy rayante di dëmmante moo tax chaque année nga gis kenn dee fa bu ñu ne xeesal fan lañ koy defee publicité TFM diw bu bon bu nekk bu joxe cancer TFM la ñuy taamu moo tax man fii sama télévision amul TFM amul 2S amul RTS ndax jabaru Farba Ngom RTS lay liggéeye chaque fin du mois mu jot salaire tëdd fële këram di nelaw ñu di ko fay. léegi man dinaa dem di abonné ci benn chaîne bo xamante chaque fin du mois lañuy encaisser pour fay une imbécile comme la femme de Farba Ngom qui s'assoit qui va dormir chez elle et avoir euh, un salaire et demain avoir une retraite yéen ñi nekk ci diaspora bi da ngeen am arme bu dëgër moy télévision yi nekk Sénégal yeup ngeen wara boycotter boycotté ndayam ndax ñoom ñëpp ñoo nekk ay traite ndax taxe audiovisuel yi ñu leen di fay bo leen leen boycotter ñu amati lu ñuy gagné ci Canal Plus ñu amati lu ñuy gagné ci ñeneen ñi. Elisabeth naa la woo après nu ne woon ni da fekk ma doon live moo tax ñun li ñu war a xeex dafa bëri ça va de un de de A jusqu'à Z ñun dañu bëri ñun dañu bëri problème dañu bëri problème léegi comme dañu bëri problème te yëpp dañ ko war a résoudre no ku nekk dafa war a def effort même au plus petit degré même boo mënulee génn manifester mun nga toog sa kër nga dugg boo dégloo maam li mu wax nga dem désabonné ci télévision sénégalaise yi nga ne man dootuma leen jox di sama dërëm ñi nga xamante ne jàppalewuñu ñi nga xamante ne dañuy toroxal duma leen joxati sama dërëm man ça fait plus de huit ans je n'ai plus de

ngeen jox ko autorisation pour mobile télévision motax tax bitam lañ fay def motax lu bon rek la def ci télévision bi motax yo su Ndour do duñ lay sonkoriser ba sa xel bi delu ci wat gis nga boo Sénégal billahi di nga yaru par la force xam nga rusa di nga génné di wax politique parce que fo wax ñu xorom la télévision Sénégal tuba bi rek ngay dem tok di doul mais fo wax ñu xorom sa ndey ngeen dem gis waa New York li ñu def li li ñu def Macky Sall téegal maamam téegal ko ba monde bi yëpp di gis ne guy riir Macky Sall ne xaw ma lan lañ ko nommé tuité na ko tey ci ba moom ndeysaan dañ ko mujjee nee na fenn lañ ko teg yow foofu mbindaan nga fa nee naa la ca franc-maçon yi mbindaan nga fa yaay def vaisselle bi Macky def vaisselle bi Youssou Ndour ay def muy riiti yéen li gën a bon ci franc-maçon yi yéen liggéey boobu ngeen di def yéen vous êtes de la merde là-bas yéen dañ leen di utiliser fof motax Chine nek le seul pays au monde bu amul benn franc-maçon chinois yi duñu franc-maçon moo tax tubaab ragal leen motax Chine di avancer mille allures ñom sen xel lañuy démé sen culture lañuy démé ñom sen connaissance lañuy démé ñu ngi raw ñu ngi raw ñu ngi raw ñu ngi raw ñëpp est-ce que lool mo leen di wone est-ce que vous avez besoin de rentrer dans cette franc-maçonnerie là pour développer pays. Vous n'avez pas besoin. Même pour, se développer, vous n'avez pas besoin. Parce que vous avez utilisé, vous avez vous les qui Chine parce que a lambar dem Chine mais len fa dara chinois yi seen baaxu la tek ci kaw table bi ak seen connaissance jël chinois c'est le gouvernement amul franc-maçon moo a tubaab yi nous espionner fenn fenn fenn mais vous les imbéciles là cette bande d'imbéciles là nga xamantene ne juddoo ci gatt té boo di dédé ci gatt vous n'êtes rien du tout rawatina ñu gis ay bande d'imbéciles yu melni yeen yéen naan dañuy utiliser sénégalais pour encore continuer wa teggi fi mo nek retraite gis nous ren ngay jël retraite Ndour Abi Cucu ren ngay jël retraite dama len kay prévenir rek pour ngeen préparer sen bopp psychologiquement Baaba Maal moom yàgg yàgg na sax semi retraite la nek mais ren ngay jël 100% retraite légui yeen ñepp bande cette bande là ces opportunistes là Ismaïla Lo mom ba xaalisu Covid bi génnee la gëj a ba mu déggé né ko par bi ñëw na rek kopparu Covid bi rek yu Ismaïla Lo génn génne ben clip ñu jox ko xaalis walam

woykat yu ndaw ñooñu jotuñu dara mais xool leen da ngeen di dem ngeen génnee ni su ñu woy Covid yëpp ñu woy Covid yëpp c'est parce qu'ils ont reçu le financement de Covid ci la yana Y'en a marre soloon yëre yu weex yooyu noonu génn Covid corona da ngeen di toog seen kër ñoom tamit wéy nañ <laughs>

après ñu ñëwaat ñu fen ñoom ñu ne korona bi dafa affecté seen concert yi même ñu doon concert sax ñu ne dafa affecté seen concert yi Youssou Ndour a touché Ismaïla Lo ñoom ñëpp artistes yu mag yëpp ñoom seedoo nañ ñu ndaw ñi nekk kàngaado ñoo nekk ci el bi di ngaa nga ngeb di wut ñenn ñi ay cent mille francs boo nekkee kàngaado nga jot cent mille wala cinquante mille wala doo jot dara ñu nekk ci kaw tous ils ont loolu nag au nom de tous moo tax li ñu def nii ñu def ko dañoo war ñu ñàkk ko def daf ñoo war moo tax ñu ngi leen di jox ndéeg ndaje 16 heures te Châtelet bu 16 heures ñëpp nawoon démb fa woon bu 16 heures jotee ngeen ñëw ca théâtre Châtelet bi boo leen wàccee rue de Rivoli Châtelet sortie rue de Rivoli ngeen laaj ci magasin Damar boo leen passé Damar ba ca angle ba ngeen tourner boo en face donc partager le maximum possible pour que les gens puissent venir 16h, 20 20 théâtre même si pare 17h, heures mun chaque ñëw au cœur de on a besoin de centaines de Sénégalais sur le terrain képp kuy bëggee Sonko soxla nañ la tey ca théâtre ba képp ko xamante ne tey lii xew Sénégal métti na ko soxla nañ la ca théâtre ba parce que Youssou Ndour c'est notre ministre conseiller qui est un emploi fictif parce que Sénégal on détient des centaines de ministres conseillers yoo xamante ne amuñu bureau chaque weer dañ leen jox salaire lan moo def Youssou Ndour ministre conseiller parce que dafa nekkoon ci fekkee ma ci boole léegi fekke ma boole boobu noon ñëpp ñu bokkoon ci Benno Bokk Yaakaar te mënuñu nekk ministre yu rëy dañ leen di def ministre conseil ñuy jot salaire moo tax Souleymane Ndéné Ndiaye comme bokkoon na ci ministre bokkoon na ca fekkee ma ci ki bi ci Benno Bokk bakkar bi chaque mois mu jot deux millions parce que ñom Sénégal pour ñom boolu dof la boo xam te ne dañ ko pàccoo ba paré ku ci nek par rapport à tes militants que tu vas ramener cotiser dans Benno Bokk bakkar di nga jot ben salaire tous les mois légui ñom ñooñu bokk Benno Bokk bakkar ils sont tous pareils

ku nekkul mbote koo xam ne juróom mbote bul nangu topp ci ginnaaw ñooñu defal résistance du côté du président Ousmane sonk ñëpp ñu ànd fale c'est des mbote ñoom ñoo leen di permettre ñoom ñu toogaat ci kaw table bi séddoowaat Sénégal képp ku dem voteel ku bokk ci Benno Bokk Yaakaar xamal ne ne yow yaa jëlaat buumu jaam bi dem jox leen ko ñoom pour ñoom ñu tekki ñoom duñu dem kaso seen doom du dem kaso ñoom seen famille duñu dem kaso mais yéen yéen dem kaso yéen mbote yi yéen jaam yi di ngeen dem kaso man ma bokkuma ci raasu mbote yi man moom du ma mbote sama ku yaakaar ma jox ko sama carte bii nii pour mu dem jébbal ko Macky Sall pour Macky Sall jox ko salaire ah bàkk na ñàkk man loowu imbécile yi dama déglu dama leen topp depuis 2017 ba Assane Diouf di yuuxu ba léegi chaque jour may jàng seen stratégie ba léegi dama comprendre seen stratégie muy imbécile yi nekk ci biir yeewi askan bi muy ñu nekk ci biti parce que ñoom Déthié Fall comme Sonko am na assez de député soxlawul parrainage Pastef n'a pas besoin de parrainage parce que ñoom ci loi bi ñu voté ku am treize députés soxlawul parrainage Khalifa Sall soxlawul parrainage mais moom bokkul ci fichier électoral bi PDS ñun dañ leen sarax ba ñu am treize députés yi plus de treize députés ñoom soxlawuñu parrainage léegi ñu ndaw ñu ndaw ndawaan yi nga xamante ne amuñu ay nit ñoom dañu ñëw njàmbaas seen bopp ci biir Pastef pour mun comme Sonko génnul ñu nous leen a wax car leen parrainé pour ñu mën parrainage Mon nouveau système là je le comprends Moi, tax ma ne C'est une carte d'électeur du moment où président Ousmane Sonko la soxlawul parrainage parce que nous avons voté bien loi boo xam comme treize députés tu es qualifié d'office Sonko il est qualifié d'office Il garde a une carte d'électeur xew buñ leen woo vous bi bu jeexee ñu ne waa joxe leen seen carte de lecteur bu leen ko joxe ku naroon leb xaalis xaara ba deux mille vingt quatre passé nga doogay leb xaalis ku naroon faju xaara ba deux mille vingt quatre passé Youssou Ndour xam naa naka la amee woon parrainage am ci de dafa dem ubbi PAMECAS la dem ubbi PAMECAS mooy même yéen ñi nekk ci PAMECAS yi sax dañuy jël seen carte a yi ah, dem di ko jaay PAMECAS yi sax dañuy jaay carte d'identité Sénégal moo nekk vrai vrai vrai vrai dëkku mafia Regardez bien ce que vous signez. Parce que faut que vous ayez un parrainage. Si vous avez un président, il faut que tout le monde se lève. Il faut que vous ayez Il faut que vous ayez un Aux États-Unis, 10 sur 10, nous savons ce que nous voulons. Nous savons ce que nous voulons. Mais nous avons un peu de temps bu fekkente ne da ngeen di Sonko bu fekkee ngeen Sonko xam leen loo leen bëgg sortez en masse sonkorisation il faut y aller foo leen dégg ne sonkorisation am dem il faut sortir en masse masse boobu visuel boobu noonu ku nekk am na télé ci poche mooy tax message bi man sama portable bi numéro bi dañ koo crypté fu ma taxaw léegi dañ koy signalé vidéo bi day jeex mais comme janax day bëri pax am naa beneen puce léegi bu may live portable boobu laay jël puce boobu laay jël pour dem live fi ma bëgg a live te du tere li ma bëgg wax yëpp dinaa ko wax donc tey 16h rendez-vous 16h suba rendez-vous 16h le 16 octobre

mais politique bee tax ba nga doon li nga doon ku ñëw nga riitit ko ku ñëw nga riitit ko mais riiti fi lay jeexee te Aby Ndour bu ñu tax a wax Aby Ndour jusque là ñu lay suturaal parce que boo jógee rek naan man doomu Soxna Ndour doomu Nanana doomu doomu bu euh, xawma Eliman Ndour xawma Soxna Ndour doo doomu te xam nga luñ la wax doomu jaaykatu cere bi nga léegi yow sa ndey lu tax doo ko wéy di wéy ndeyu jàmbur doo doomu soxna Ndour doomu jaaykatu cere bi nga imbécile saay boo jógee rek di nga boo dugguloon ci politique yi boo demuloon ci Amadou Ba boo toppatoowuloon cucu xalifa Sall boo toppatoowuloon cucu Tanor yaa na suuf sedd ci kawam boo toppatoowuloon cucu juuf Sarr du ñu wax ci yow mais comme da toppatoo cucu ñoo ñëpp ba bëgg a yegg si ba su Amadou Sarr Amadou euh, Amadou Ba léegi nag comme yaa ngi waaj a koñ ci bosu Amadou Ba ndax yow cucu adultère moo la jur moo la jur yow Ami Ndour cucu adultère moo la jur ca jaaykatu cere bala problème bi sa jaaykatu cere cere ba moom moo ñu bu tëjoon affaire am bi tey toog di tutoyer sénégalais yëpp est ouest nord sud jaaykatu kere bi moo ñu tooñ léegi nag ñun waruñu woon yegg ci jaaykatu kere bi jusque là dañuy noppi parce que dëkk bi sutura lañu xam mais nit ki boo koy suturaal saay bu xëyee di la saaga saay bu xëyee di la toroxal bu yàggee da ngay wàccaare sutura bi moo tax ñu naan nit ki bu bëgg bu amee sutura moo ko may boppam Amidou Sénégal yëpp la sutural ñëpp la sutural ñëpp xam nañ ne nday ba katu cere ba la ñëpp xam nañ ko mais ñëpp la sutural mais plus ñu lay sutural plus nga nan non j'en ai rien à foutre ñi may sutural dina dem yak sen teraanga ah eh, xaalis bu len wara fajj dina ko lek man rek wara dund nanana nanana sa katu cere ba problème bi sa katu cere ba la ñu au passage may wax sama mbokk séeréer yi bu ñu ñëwtee Dakar aussi nañu yeew di déglu samay live di yeew ñu bàyyi ku ñëw rek foowee leen dem ca jaaykatu cere ba problème bi yëpp sa jaaykatu cere ba li ñoom famille bu yëpp xam nañu sa jaaykatu cere ba mais bu léegi ñu ngi lay suturaal ñun ñëpp Sénégal est ouest ñëpp xam nañu sa jaaykatu cere ba mais kenn waxul ne si jaaykatu cere ba la ñëpp ngi noppi léegi yow nga ñëw rek dëkk bi nga xam te ne ñëpp jox cër ne non comme jigéen nga c'est pas grave màgg nga léegi duñu wax juddu bi duñu wax na ci jaaykatu cere ba la mais saa bu ñu xëyee rek Aminur jóg ne moom day jóg imposer boppam toppatoo ay cucu pa encaissé xaalis xanaa yow rek yaa nekk nit ci biir dëkk bi ca jaaykatu cere ba la mhm. léegi Youssou Ndour buy dem tamit ne yóbbaale boobu boo demee mu ko maam nee na affaire ba ca jaaykatu cere bala mu naan gémmiñ gi na nii ca jaaykatu cere rek de am naa cere bi naa neex na cere ba waroon naa neex de waroon neex torop waroon neex moo kon njaaxum yàgg na Sénégal de paa yi <laughs> paa yi naan diw kilifa ñun keñ kilifa mais xale ba ca jaaykatu cere bala la abi nuur billaay cere bee ñu tooñ bu téyoon affaire billaay doo juddu ba toog di tutoyer sénégalais yëpp 17 millions de sénégalais naan Amadou Ba c'est frère mais nekk à la frère

mais on n'en parle pas ndax am na fu ñuy yem nit ki nag bu amee lu ñu la rusee ah da koy rusee sa bopp nga bàyyi politique Sénégal jàngoo ko jongoo ko nga bàyyi cucu paa yi ngay toppatoo nga dem fële na la jël retraite te taamu woo ci n'importe quel paa paa buy gérer l'argent du contribuable moom nga ci taam yow li nga lekk ci Covid bi lekk nga ci taxe audiovisuel bi ba mu ñëwee. mooy ba ñuy maye artistes yi ñiy deful concert lekk nga ci yow Aby Ndour léegi lekk encore ci mbaran Diouf Sarr am ci oto li nga léegi da nga ñëw ci am Amadou Amadou Ba man moom ba nga jegee Amadou Ba laa xam ne Amadou Ba du ma sa doon présent de la République Sénégal ndax yo koo jege moom yow ñëpp nga woon ñëpp amul kenn koo àndal ba mu fal Diouf Sarr ba nga ko jegee la ko sal Sall limogé ci santé ba Khalifa Sall bang ko jégué la dem kaso ba nga entretenir ciutu bi xawma nombre de fois nga ka entretenir dé mais bang ko commencé entretenir la commencé perdre vitesse le succès ba daanu Tanor ant ba ngay entretenir ciutu ba légui mosul dé kay gongo président ba ni mu guéné aduna moy ko xas góor bu repp ba yëkkati cucoom bi ne abi kay entretenir ko moy da ngay fay ben par ben mu ciutu bu mu entretenir mu daanu boo daanul di nga di te we loolu nak jaaxaluma ndax gémmañ gi krek krek krek rek gémmañ gi nimu guddé rek rek rek rek rek koo mm. entretenir mu dee te gémmañ ko guddu bala Sénégal yëpp ya fa gëna a bop ñay ñaay fange yëpp yëpp yëpp yëpp man amna ñaar yu fange ni mais yow sa boss bi ni la def dafa mad yow sa boss bi comme montagne bi ma ba ni tegu ci benen bi <laughs>

mooy bu ñuy rey système bi dañuy rey opportuniste yi rey caga yi <laughs> yow yow man laa wax ne seen koppar di dugg de maam bu ko neexee bañ a wax ah parce que moom bàyyam bi mu doon doxaan jaaykatu cere bi taay sab la doon jël di doxaane foofu il a pas donné beaucoup parce que xam nga ne séeréer yooyu noonu boo jëndalee benn sandwich tu leur doon cinq mille dix mille c'est mais moom lañu doxaane doxaanee moom dafa dafa dafa dépassé moom dafa dafa ñëw nag ne déedéet man dama yéeg man fu mu nekk nii ay immeuble lañ may tabaxal defal ma ay pupitre dugal ma ci dundu garmi yi moo tax nañu delloowaat ko ne ko ne moom baayam ba muy doxaan ndayam jaaykatu cere bi jotu faa joxe yow yëpp et que góor gu kon sax parce que yani kon la ba yëkkati ay milliards di jox abi ami ay c'est que tu es vraiment tu es vraiment le dernier abruti de la terre parce que gisuma ban plaisir ban plaisir la a apporter ce ami là plaisir bu mën a siècle ba ngeen war a jël suñu économie yëpp que ko ci buntu kër abi gisuma ko j'ai pas vu ça les comme Rousseau say ruzo say mbokk réseau sa bop, fu nek ni, nii bu boo génnatee nga ànd ak amro na leen tegal fii affaire yi moo tax gis yenn parti waa maam wax leer ne sa cere bala bu téye woon affaire am bi abi bi du me mais ab dafa judd ba pare gën rew motax ji nga ba nga commencé def sa rewantu bobu non ci famille ba dañ la commencé rappeler sa nay sa reewaande tax na ba ca kër ga ñu rappeler la sa ndey mais yow loolu doyul de parce que mu ngi desoon ci secret de famille mais yow reewaande boobu noon da nga koo léegi ca kër ga nga ne léegi da nga koy ñëw étaler ko ci waa Sénégal yëpp war leen ne yow abi yaa war a fal prochain président de la République du Sénégal mais ne yow rek yaa am droit de vote ñeneen ñi leur carte est caduque ñu ñëw woon la nag ne doo ñu parce que yow sa bopp sa propre yaay sax accepté goo ko dans ta subconscience dugalu goo sa biir bopp ki nga doon accepté goo ko ba pare bug ñëw imposé su ñu war a yor munta ne léegi loolu yëpp ca famille bala bokk moo tax ñu naan tel père tel bàyyi ba da doon ëmbal doom ji ñëw di ëmbal tel père tel fils Sénégal waaye diw kii la diw imam la dama xool muy tugg yëpp yëpp yëpp nga xool yan dégâts collatéraux la fa def yow Amidou débat dégâts collatéraux yi ci nga bokk dégâts nga ci dégâts yi nga bokk ci dégâts collatéraux paa bi ci nga bokk <laughs> kon sa mali ni wax ma <laughs> ah, Khalifa Babacar ama <laughs> ajouté

xale bu ñuy nekk secret de famille léegi secret de famille yooyu bu ñu màggee di perturber société bi loolu mooy indi abi te y' a beaucoup de abi y' a beaucoup de perturbateurs endocriniens yoo xam ne dañu ñëw rek ah juddu ci dégâts collatéraux ñëw bëgg a be suñu société léegi nag TFM jox naa leen débat dégg ngeen boobu débat la boobu kaa la kaa mooy semaine bi loolu war a def kaa mooy paa yi dëkk ci koñ bi di ëmbal jaaykatu cere bi ci koñ def leen loolu kaa ndoy baan jox naa la kaa mooy loo xam ci paa bi ëmbal jaaykatu koñ bi jaaykatu kere bi nekk ci koñ bi mais nangu ko takk mais paa boobu ilimaan la bi jaaykatu kere bi di ñibbi dëkk ba mu nekk man de mënu maa yóbbaale xale ba dëkk ba ndax mu ko yóbbaale du ma am lu ma ko dundale mu jël xale bu liir bu tooy bi jox ko jabar ji mu yar ko mu nekk secret de famille loolu mun ngeen koo def parce que loolu kaala parce que genre cas yoy rek le ndoy bandi traité ci TFM bi genre cas chaque jour nga traité ko comme cas dafa ba am buntu sujet bi sujet la cas est-ce que xalé nañ ko mu xam est-ce que xalé psychologiquement elle n'est pas perturbée cas la mhm. kaala tamit ñu wax parce que dégg naa seen directeur tamit yéen waa TFM ñu mu ëmbali bëri na xale yu mu ëmbal te reconnaître leen balaa muy dee dina reconnaître xale yi mhm. comme ça xale yi mun a am seen santu baay yéen a bukk loolu yëpp kaa la yéen rek kaa ngeen moo tax chaque jour léegi kaa yi duñ ko jëlee si seen biir lañ koy jëlee teg ko foofu ngeen tegal ci tamit Bouba Ndour lu mu xalaat ci pa buy ëmbal ay mineur

ay Sénégal moo tax sujet yooyu yëpp dama la koy wàccal ngeen woowu Diop Isaac tamit ne lu tax moo ci doomam bi nga xam te ne moo Zeyna ñoo bokk âge mu yar ko pour mu bañ a ëmb ñu dénk ko Zeyna mu ëmbal Zeyna di commencé ko tëddee à l'âge de onze ans loolu kaa la loolu gën a ëpp importance yi ngeen di traité actuellement maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous seize heures ca théâtre Châtelet ba ca xew ba ca théâtre bi nga xam te ne pour le président Ousmane Sonko parce que nekkatul Birima Sonko la dañu remplacer Birima par Sonko